nuyu ndaw góor ak jigéen di leen ne seen série bi neex na 46 série bi neex na lool waaye nag maram def na lu ëpp de ñett mbéj tal jëkkër ji aa warutoon a def loolu jëkkër sangala kenn du ko teg yéena yi ba pare ñaareel ba dafa war a noon a mandu si yëfi Lalla moom warutoon dem wax affaire yi feebari Lalla ak naan garabam moom yoonam newu si yoonam newu dafa wara noona noon toog palaasam waaye loolu mooy tooñ mu ñëw fekk Lalla si kiram mu amoon jàmm mu dugal ko si lu naqari léegi naqari xol ba pare bugga a koo yokkal jël béjjénam rekk di ruux ah maram maram wàññil sa gàllaaj ñu jam la ma ne ko wàññi sa gàllaaj ñu jam la ba pare yow sax maram yow laal moo laa gën yow laal su doon keneen lam wax seex du ko ko wax ne ko waa looy jënd léegi def ko ñaar munoon na ko ko wax waaye defu ko kon yow Lalla moo la gën parce que mu ngi noonu wax na ko seex ba seex jëndal la moo tax nag danga war a ne tekk nga em em soo emee lu neex dinga ko mun a am waaye boo emadee nag lu nekk dinga ko mun a ñàkk maram emal nga jàppa la ngeen nekk benn ngeen mun a juboo waa yow déedéet yow bugguloo juboo fu juboo baree am rek nga roppa dara baax na jërë ngeen jëf waa tey moom li mu bëggoon wax ci série bi di leen wax ni kontaan na trop ci série bi tey waa ndax laal la nu mu def nii lii la waroon a njëkk wante nekk fii di feebare dem hôpital lool noonu moom rafetul waa tey moom man Marème laa faral mais marim tey moom dangaa tooñ waroo woon dugg ci ay 18 jaamur waroo woon dugg néegam waroo woon lijjanti ay feebaram loolu nag kenn du ko def tey moom mare moom yow laa faral mais mere naa la trop waroo woon def loolu waa di wax laa la nag ñi nga def affaire bi lii la nit daal ah ngeen di wujje waa soo bëggee defante da ngeen defante waa ay série bi neex ngeen defante daal defante bu neex daal man daal yii laa gëm daal tey moom kontaan naa trop si laa la waaw waaw di wax nag ñoom am sa nag ah, na na guerre gi na guerre gi commencé guerre bi moom daa war a commencé waaw di wax nag maire bi ah yaay ñoom Cheikh kilifa nu muy du doxalee nu mu doxalee lu mu def nii rafetul boo amee ah say jabar doom bu ñëwee si kër gi di sëy dañ leen war jàppee ne say doom. parce que boo ko deful rek yow boo amee say doom bu ñu sëyi jii noonu lañ leen di def waa di wax maire bi moom lu muy joué nii moom ah doy na waar daal comme théâtre la rek théâtre lañ koy jàppee mais lu muy joué ni moom miit na trop waa neexul si xol lool kenn du ko def parce que euh, li laa la bëgg loolu la Marème bëgg kon moom warul woon jël. ah Marème di di taqdir Cheikh kii xala parce que defu ko Marème Cheikh la koy def parce que xam naa Marème moom bu bëggee sëy moom day sëy gis ma kenn ku ñàkk kenn ko koy yàqal mu sëy te xam naa moom bu génnee ci sëy sëy bi ah dina def ay affaire am ba Cheikh di ko toppaat loolu moom lu ma wóor la kon boog na góor góor di jàppale kii bii nii ndoomam bi mu sëy sëy bi loolu kese la. maa ngi leen di remercier nag di leen gërëm di leen sant kontaan naa trop nag maa ngi dëkk ba Yoff maa ngi tuddu Mame Diarra maa ngi tudd Mame Diarra fay <laughs> kontaan naa trop tey moom série bi moom daa ala ndaw mi neex trop di leen wax ne nañ continuer nag defante bi defante bi moom mooy tax série bi neex nit ñi apprécier parce que neex na trop tey moom neex na moom car macha allah neex na. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu bu baax moodu Mokhtar Loum la. Euh, tey nag moom damay ñëw ci lu xew TV parce que ne wax ci jury bi nga xamante ni moom mooy maîtresse d'un homme marié tey moom dafa am benn point boo xamante ni daal point la bi nga xamante ni daal euh, doon na lu nga xamante ni daal il faut ma wax ci muy euh, ci ki nga xamante ni moom mooy Marème Marème. nañ koy wax ne ko nay teey ci yi def balaa ngay def dara nanga teey eh, ba nga xam nga doora def te boo xamee itam war ngaa mën a am ak dal ba yenn yi mu mën di ko wàññi waaw mu mën di ko wàññi ndax dèjà kii di Seydina Cheikh Diagne mu ngi dem jëndal leen ñoom ñëpp lim leen jëndal ba pare mu ñëw jox na lalla lalla wax wax ju rafet ne ko mbaa ñaar nga jëndal mais xoolal ma mareem fi mu taxaw ci bunt bi di xaar seex xanaa balaa ngay def réll mbéj nga xam ak jigéen naka ngay mën a tiimee sa borom kër di ko mbéj loolu mënul ànd ak sëy bu barkeel mënul ànd ak nga am fa doom yu barkeel mënul nekk marem nay tey marem nay tey ci yëfu Seex Jaañ waaw nay tey bu baax a baax man loolu laa koy wax quoi loolu laa koy wax waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah waa Lu Xew TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax a baax ah ñu fas yéene nag participer ci maîtresse de no marié parce que épisode 46 moom tey moom ni mu demee moom vraiment Cheikh Diagne tey ni mu réagir moom du noonu du noonu daal wax dëgg yàlla Marème tamit xam nga def na benn faute rek parce que di jigéen moom nekkul doonul lu sa borom kër wax rek boo xëyee nga nettali ko mais tamit Marème jëlut intention nettali ko lépp dafa dem ngir seeti laal la ngir am jàmm mais laal la ci boppam moo bëggul dafa bëgg ay parce que nit ki moom su ñëwee di la seet si nga feebar mu ñëw di la seet ak loo jàpp lu nekk war nga kaa mën a bàyyi wax ko ndax yaa ngi tane waaw wala déet mais ni ko toroxalee tamit ñaaw na Marème dafa teel a réagir moom loolu foofu la juumee moom dafa teel a réagir parce que bu laal bu Cheikh Diagne joxee laal kado war naa mën a xaar mba moom am na wala amul mais dafa teel a réagir daal mais xam naa loolu yëpp ci fiiraange yooyu yëpp ci fiiraange la daal mais daal Cheikh Diagne daal booy xool ba xool moom wax dëgg yàlla mënut yor jabar parce que moom kenn xamul dafa bëgg Marème kenn xamul bëggul Marème parce que ni mu koy toroxalee kenn kenn mënul ko comprendre daf koy toroxal comme si que ne mooy loolu waaw parce que jigéen moom boo ko jëlee ba takk ko moom pour man danga kaa moo tax nga indi ko sa moom day toroxal Marème à chaque fois à chaque fois ba pare moom daal nekkul góoru ñaari jabar nekkul góoru ñaari jabar mais maîtresse d'un homme marié moom à part ça moom neex na macha allah seri bu neex a neex a neex la lépp luñ ciy joué rek ku nekk rôle biñ ciy def rek am na ci kër yi kër goo dugg di ko fa gis di nga ko fa gis daal vraiment ñi ngi yeete neex na macha allah liñ ci xaw a metti mooy rek li muy waaj a jeex saison 1 ah, bi j'espère que ni Marodi dinañ gaaw génne deuxième saison bi mais à part ça neex na yéen wàllu xew TV ñu ngi leen ñaanal yàlla may leen gudd fan ak wér macha allah li ngeen def am na solo trop parce que di seetaan série di ci gis loo xam ni nga koy génnee dafa am solo dafa am solo trop trop trop li ngeen def ni moom macha allah ca kaw ca kanam rek. seetaan naa série bi ba pare waaw franchement parler tey moom série bi neex na neex na trop trop trop mais am na ay quelques problème yoo xam ne rek dinaa ko citer génne ko ci pour wax ko daal waaw benn bi mooy mère Diagne. mere naa ko lool na bàyyi li muy def ndax loolu day yàq deru golo goro yenn goro yi waaw beneen ba ca topp mooy man dama bëgg jigéen bu diiñ rawatina Marème position bi mu taxaw muy position ñaare te ñun ñaareeli du ñu nangoo jël defet bëgguñu di jël defet fu ñu toll Marème dama bëgg mu am personnalité ci boppam fees palaasam peese boppam xam moom mooy kan te bàyyi Lalla Lalla ni mu gardé boppam ci moom na gardé boppam moom boppam noonu ci Lalla téye boppam bàyyi Lalla bàyyi di ko attake gis nga ni dangay am diñ am personnalité sa bopp peese sa bopp xam su poids xam yow yaay kan waaw gis nga ne boo bañee la yab dangay bàyyi tooñ ndax tey jii li ko dal tooñ dungu ku ko yóbbe dafa war a bàyyi tooñ te nag beneen ba ca topp mooy jigéen du déglu ndax gis nga fii ku fi déglu ku nekk dinga nga dégg lu la neexul ku fi yurndu ku ne gis lu la neexul beneen ba ca topp mooy kaawu jalikaa maire yi dañoo war a bàyyi seen doom yi bu ñu buggee jigéen ñuy am lenn luñ ciy critiqué nga fii say tas fi lañ ko fekk te jalika taxawaalul daa sëy tas yàlla may ko ci ay bantam kon bu ko yi bëggee dañ ko war a bàyyi mu sëy ak moom mais pas ñu naan ko dangay sëy si indaale say topp fii benn jigéen bonu fi yàlla na bu dogalee ne da ngay sëy fii tas fi am fi doom dem sëy feneen loolu wala doom nañ ko bàyyi nag mu sëy ak moom waaw Marème nag moom tey moom sa mbokk ñaareel mere na la trop tax nga nag sama benn aaw fii tey jii sës na ma ci miiru bis bi te bëgguma loolu waaw bëgguma ko yaa teeseel sa bopp xam sa poids xam yow yaay kan toog ci sa néeg boobu te bàyyi déglu bi fii ku fi déglu déglu la naqari ku fi yudu gis lu la naqari baal déglu bi te nga kippe sa bopp kippe sa ñaari fan laal la gérer ñaari fanam mu jeex tàkk salaam loolu laa amoon lu ma ciy wax ba beneen série incha allah merci. ah tey film bi neex na neex na neex na neex na Cheikh Diagne nag tey moom kontaan naa ci moom def na yëfu góor dëgg dëgg dëgg fulaak fayda moo wane na ko fii loolu moom kontaan naa ci waaye laal Lalla tamit kontaan naa ci moom tey moom dëgg yàlla kontaan naa ci moom trop. ndax def na yëfu fu la def yëfu fay la def grand dame liñ ko xamee am personnage bi borom moom moom dafa ñàkk jom jom ji boppam la ñàkk moom xam nga lu mu war a jéem fi mu ne pour Cheikh respecté ko teg ko place am comme ni la nekkee noonu mu respecté Lalla teg ko place noonu la Marème war def waaye warata nekk ci xaritam boobu ñu koy wax waxi ñàkk fayda yooyu muy dugg ci lu nekk ndax mi ngi nii bi Cheikh ne ko dama xool trois la mu xool trois bi gis ci rus moom Cheikh ci boppam respecté ko laala nag Cheikh moom xool naa ba xam ne respecté na ko bëgg na ko teg na ko place am. waa tey de moom film bi moom doy na waar trop trop yii it it it tey ma dem bàyyi na loxoom lii la nag la olof Njaay di wax nag naan yàkkamti yàqule ndax lii mu def nii moom yàkkamti kese kese kese moo ko ci dugal vraiment Cheikh Diagne nag tey moom vraiment nag li ma doon wax tey moom am na capacité bi moom tey moom am na capacité yi yor ñaari jabar. wane na ful la dëgg dëgg dëgg waaw euh, Marème daal nag ah Marème tey moom daanu nga daanu dëgg dëgg dëgg parce que nit day tey doomu aadama day tey mënoon ngaa am lépp si njëkk ak teraanga <clears throat> waaye day wane ne rek ne àdduna moom lépp rek loo gis ci àdduna jàng du dëgg tey moom vraiment lala dóor na ko un zéro moom vraiment <laughs> dóor na ko un zéro waaw mais nag saytaane yi ci biir kër yi nag kenn du ñoom. su gën gi tasee rek ñoom la billahi ah ah seex seex écartel ñooñu vraiment génneel ñooñu sa kër gi teel a jublu ci ñoom parce que ñooy tas sa kër su nekkoon sa diggante sa ñaari jabar rek sa kër mën naa bañ a tas de mais gëm naa ne di perte lawal mbaa perte deuxième rek waaw film bi neex na trop nag vraiment tey moom neex na macha allah daal. Ah, ci série maîtresse bi day mel ni Mariam Diagne man moom bu njëkk ci moom laa faroon mooy maintenant moom ni muy doxee nii c'est pas normal du yoon sax sa wujju toog di waxtaan ak sa jëkkër nga nekk fa naan dangay déglu pareeguñ mu génn nga mbéti réer nit ki dangay respecté sa jëkkër beneen bi danga war a diñ ci sa bopp dafa war a diñ comme ni laa la diñee bu njëkk moom moom laa àndal mais laa moom je ne suis pas d'accord beneen bi damay ñëw ci beneen bi dama ñëw ci Jalika man Jalika dama kan naw loo parce que dafa nekk jigéen bu am fulla bu diñ say tas nga ñàkk fayda nii daal la nit yi nga say mën nañu jamono jii ñi say sax ñoo gën a mën a régler ñi nga xamante ne ci saygun dañu war dañoo war a xam ne ñi nga xam ne dañoo say divorcé yàlla moom moo ko dogal yàlla dafa bind ñett ki nga xam ne yow yaa tax ki nga xam ne yaa say moroom yéen a tax ki nga xamante ne si pour yow kase la na nit ñi di bàyyi xel loolu say tas taxut a ñàkk jom taxut a ñàkk fayda taxut a ñàkk sa dignité man Jalika ku ko naw lool parce que ku am jom la. asalaamaaleykum lu xew TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar di rafetlu épisode bi daw démb di wax ne Marème dafa woon a tooñ am na commentaire yoo xam ne dégg naa ko góor ñi nag. laala lañ teg toor mais la deful dara maa nit ku toog si néegam jàpp njàmburam amoo droit fekk ka fa naka ndax jël nga say garab tooñ mënu la weesu loolu te jigéen ñi dañoo war a yeewu bul foog ne sa jëkkër su takkee jabar rek bëggatu la loolu amul te yàlla moo koy tudd sa aras ngir nekk nit sa jëkkër mën na takk jabar sax te yow ma nga xamante ni moom la takkal wëj yow la gën a bëgg loolu day am jigéen ñi nekkalee nit bu baax a baax parce que moo gën a rafet waa eh, kontaan naa trop nag si série bi trop laa ah, ba si kanam mais bo série bi ndaw bi daal am na solo trop trop trop trop ñu bari war nañ see jàngat laal la moo nekk si dëgg na mënoo ñëw fekk nit si këram nga bëgg ko fi dee jëti mun la nekk waaw man laal la laa àndal moom ñaareel laa laal la laa asalaamaaleykum lu xew waa lu xew lu xew TV maa leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di déglu nag seeni waxtaan yëpp surtout bi ngeen tegoon démb daw na yaram metti na jigéen ji sonn na torop sonn na ci ci ci te yóbbanteem boobu métti na sonn na tey nag maa ngi waxaat ci affaire yi ñoom maîtresse ñoom marié waaw kii Cheikh bu amul fulla rek këram dina tas ndax mareem tegu ko tegu ko muy nit kuy jàpp sa jëkkër di ko mbéj te mbéjoo ko ci dara nag lu dul dég taxaw di ko déglu sax sa ko wujj bam neex la rek nga ñëw di ko fiire di ko mbéj mel ni moom amul jabar lim def noonu bu ci continuer rek léegi mareem dina régler dafay dof doflu rek di dala def lu kenn xamul waaye moom laal la moom am na fu lay boppam man de gërëm naa ko ci nim def bu ci boole wax bu ci boole jëf toog di ko seetaan dina dollu si waat ba ci nekk normal te kenn du ko déeg na jàpp foofu rek waax na man de jàpp kontaan naa ci ni muy def seex nag na am fulla bu amul fulla rek Marème du toog ci kër gi du réglé ndax xaritam boobu moom du xarit xarit boo xam ne defanteel ak waxanteel ak nañ def nii nañ def ne la rek wala tasal sa sëy bi lool du xarit boobu xarit amul njëriñ baaxul santul yàlla moom nag mu ngi foog ne mu ngi ci ngóor waaye xaritam bi baaxul bëgg ko dafa bëgg mu tas ñëw nekkaat ak moom foofu rek na ci jàpp nag man de noonu lool laa am ci xalaat bi nag maa ngi leen di ñaanal jàmm Lu Xew TV jërë ngeen jëf waay kontaan naa ci yéen. waa asalaamaaleykum siyaar naa leen bàyyi na ngi ci jàmm waaw man de. Jalika laay waxal sama fansi boobu na wax dëgg yàlla ma ko bëgg ah bay mu def très attention parce que nag génn na ci goro bu garaaw mais ñii goro bi mu nar a amaat de moo gën a garaaw parce que nag ñoom daal rafetlu ma seen wax daal waaw na def attention bu baax balaa muy dugg ci sëy bi waaw beneen bi mooy rakk yi rakki yi comme yaayam wax na dëgg gi na dem mu ànd ak yaayam waaw te xam ne doom ak yaay mënuñu tàkkalikoo waa kenn mënu ci dem bàyyi moom ci surtout nag doom waajur moom gàllaaj la waaw waajur moom lu mu mën di mel ak lu mu la mën di def ci àdduna da ngay sëgg rek mu jàll la waaw di sàkku ci moom ñaan waa na dem mu ànd ak yaayam waaw tafaa tamit mën na ko takk parce que Tafa dafa baax te daf ko yërëm waaw beneen bi mooy beneen bi mooy laal la mareem te nit ñi dañu foog na muus na mais muusul Lalla moo ko gën a muus parce que moom instant bii du utilise xelam day dem rek day dem lu ko xelam may rek mu def ko waaw ba pare sa jëkkër lu mu la wax ci sa néeg tamit wuroo ko nettali waaw wuroo dem sa aawo tamit xam nga bëgg jàmm man du tax man ñëw ci yow ne la lii di la wax daal loo xamante ne daal comme yow bëggoo ñu nekk bëggoo ñu ànd dama lay def ni nga ma def rek waaw dama lay def ni ma def bu ko defoon ni mu ko def daal laala doo am benn problème mais instant bi sëyam dina commencé am ay problème parce que la moo ko gën a muus te instant bi bis bu jógee bis bu jógee pour mu génn kër gi dina génn kër gi marem daal xam naa affaire bi la remettre ci moom te ñàkk tey nag moo ko ko yóbbee ñàkk tey dugg sa yoon nekkul waaw merci beaucoup. ah asalaamaaleykum. waa lu xew TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar di rafetlu seen liggéey macha allah teg ngeen ko si yoon maa ngi leen nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm di wax na démb moom seetaan nañ maîtresse <laughs> neex na trop trop trop trop kontaan nañ trop trop trop maîtresse moom wax dëgg yàlla amul nu mu neexeewul macha allah neex na trop trop trop trop macha allah kontaan nañ trop mais daal ah Jalika yow moom wax dëgg ak yàlla macha allah kontaan nañ si yow yow Jalika amoo morom amoo morom vraiment wax dëgg yàlla li nga joué démb macha nit day gëm boppam nit day gëm boppam xam moom mooy kan. ku la xeeb yow nga respecté sa bopp xam yow yaay kan diñ am dignité waaw loolu la nit sox loolu lañ soxla si doomu aadama waaw Mariam démb yow moom ànduma ak yow viwu jàmbur kenn du si dugg waaw laala nag waaw noon la danga war a génn nag jàkkaarloog Mariam ngeen xatab ngeen xat ngeen xëppante acide nag waaw loolu ngeen war a def génn leen ngeen filfilaale xëppante acide coow yi mel ni taq su bënn noonu la sëy ngeen jiita ŋaas waaw ay ayloo nag ku ne wone sa bopp moo gën xuloo bee xeex beeg defante bi amul benn sens wax dëgg yàlla démb moom kontaan nañ ci film bi trop neex na macha laf cat. asalaamaaleykum waa Lu Xew TV maa ngi leen di nuyu ah tey moom ñëw rek jax waa la lan la mention très bien Cheikh mention euh, nag am baax. waa Marème nag matadi bii ne ba kañ ah Marème nag booy dugg ci mbiru jàmbur nit dugg la ci Marème nag yow nag fu la Sénégalais yi tegoon nag yaa ngi ko bugg a wàcc lalal nag xoolal wax nànk dox nànk rek ba yegg fi nga bëgg a yegg seen ngoro nag moom la gën a ci làmb ji rek yéen mot ngeen da ngeen mot sëkk sëkk yéen ñaar waaye yow Cheikh Cheikh maa maa la sopp Cheikh tey moom fa digg yàlla. sukk bu nga sukk sànq dafa mel ni man nga sukk nit bu tooñee day wàccee boppam te wax dëgg yàlla waxewu la ko am ci sensu yàq laal la danga ko wax rek ndeysaan marim ñëw rek ne tëll tëll marim nag war a dugg néegu jàmbur nag bay lijjanti feebaram waaye loolu waru la marim loolu sa cër doy na waar sa copine nag moom ne ko na lay wax dëgg yi mu la daan wax na la koy wax tey moo wax fa dëgg yàlla ànduma ànduma ak yéen ànduma ak yéen wax fa dëgg yàlla Jalika ah, doy na waat daal doy na waat tey moom théâtre bi moom kenn xamul nan la ak naka la mais yàlla baax na ñu xool fi ngeen di mujj xam ne daal ni sénégalais yëpp ñu nekk yéen di leen ñaanal wér ak sutura parce que tey fi ngeen toll dugg ngeen ci kër yëpp kër yëpp ngeen laal am ah, kër yëpp ngeen laal mention très bien. asalaamaaleykum waa EPS seen série mais pour Jalika laa doon wax mais Jalika kooku noonu ñuy génnal parce que yaayam mais fekkoon dana sëy si kër gi moo mantu nekk mais il faut mu daal jéem a dem si daal kii mu dem kam ne woon looloo ko arrangé il faut mu dellu daal si sëyam looloo ko arrangé bu fekkee fee la tim bu fa demee comme ça nu doon nu doon amee jafe-jafe ak seen bu njëkk ba lay demee te xam naa sax fee mooy tane salaamaaleykum. waaw ah, asalaamaaleykum ma tey maa desuwaat moom série bi daal dem moom macha allah si rafet mais dem moom bu doon ne dañuy joxe ay point ay jalika moom dem moo ci am vingt sur ndax macha allah démb daal démb daal bëgg naa ci Jalika bu baax a baax a baax aussi bëgg naa ci Lalla waaw Lalla man lii laa bëgg Lalla damaa bëgg nga dellusiwaat wu far sa jëkkër wu far sa doom seerewaat sa ménage bu baax bu la mareem perturbé mareem moom itam teemoo tey man damaa bëgg nit ku bëgg aawoom ca Cheikh démb wane na ne mbukki wiiri wiiri jaari daari ci li wax rek comme ba muy metti moom moom la woon comme su neexee waru koo fàtte mais Marème ni ma koy ni ma koy diggal daal mooy na ci na teey na teey bu baax ndax su jàppee ne instant bi Cheikh dafa sàggane laal la ba tax mu bëgg koo këll-këlee mi ngi nax boppam mi ngi nax boppam bu baax a baax ndax olof nee na bëgg du bañ te dafa xamul ne tey jii deretu Cheikh laal la moo ko njëkk indi ndax moom la amal doom comme moom fu ne nii day doog a dugg dafa war a nooyal rek lépp neex ci moom mais Jalika daal faanaa ko trop torop Jalika moom macha allah macha allah macha allah yii Jalika oh, ñu wax jigéen ju man góor mais dama bëgg jigéen bu fi yar ci sa bopp Jalika kontaan naa ci yow ni nga tonton mel bi neex na trop sax tontu nga ko te déranger woo ko su demee ba toog dina am na carrément ni nga ko wax dëgg la madame am na xarit. ndax li tax am na xarit démb bi mu waxee daf ko xamal ne ko carrément yow yaa nekkul ci dëgg man loolu laa bëgg ci nit nit ki sooy ànd ak moom su nekkul ci dëgg danga koy xamal na ko nekkul ci dëgg mais ñoom itam ni ñu commencé doxalee kenn ku nekk di di xeexal sa morom loolu tam li yàq sa ci la bokk boo xasee ba sëy da nga war a écarter say xarit xam ne dangay sëy mais ndax célibataire ku nekkul ci sëy kooku mënul la digal nooy sëyee te soo seetloo laal la xarit eh, rakkam bi gis ñu fu mu nekkee ci sëy Marème moom itam aussi gis ñu fu gis ñu fu nekkee ci sëy kon ñooñu mënuñoo conseiller kuy sëy kuy sëy ku conseil kuy sëy kuy sëy moo ko mën a conseiller aussi ki la ci jiitu bu bari ñu demee ni sa yaay ñu demee ni sa mag ñi la mag daal ñi nga xamante ne dugg nañ ci néegu sëy ñoo ñoo mën a conseiller kuy sëy mais célibataire comme xaritu marine bi ak xaritu làlla bi ñooñu ñooñu seen xel lañ la ñuy ndax xamuñu lu baax a baax li ci mbëggeel xamuñu lu baax li ci sëy loo tam bëgg naa sama mbokk jigéen yi bàyyi ci xel bu baax baax na kàddu yi gudd na mais ñu ngi ciy jéggi lu ci wér a wax na kontaan nañ bu baax a baax ci interview neex na trop macha allah série bi moom dara fot waaw kontaan nañ trop sax yéen waa la xew tigi moom ca kaw ca kanam rek ndax yéen a ngi def loo xamante ne neex na torop ndax dangay seetaan série bi ba pare mën a am foo dugg wax te wax ci sa xalaat te muy xalaat bu nit mën a jariñoo loolu moom bu ko gën a am sens euh, yombul daal ñu ngi sant bu baax seen lii moom rafet la ndax léeg-léeg da ngay da koy dund wala nga gis ko ko dund te nga war koo mën a partage te doo ko am comme su ngeen ubbee lii da ngeen a war a sant bu baax te yi naa seen kii bi jëm ca kaw ca kanam laa ci lu baax macha allah bëgg nañ ci yem trop sax. am yaayu rakk yi moom itam euh, mi ngi ñëw mi ngi ñëw mais bi yaayu rakk dafa war jàppale rakk yi yóbbu ko ci ki nga xamante ne moo wax moo xam dëgg bi yëpp yëpp wax ko ko yaay laa la aussi ñu koy balaa bu baax donte mi ngi ñëw mais des na gis na lu pare. ndax vérité bi nga xamante ne dëgg dëgg dëgg moom la moom la rajo war a soxla mooy kan moo ko violé ndax instant bi moom xelam jàpp na ne nekkatul papaam kon euh, rajo instant bi dafa war a xam ki ko violé dëgg aussi di ko jox courage di ko jox mbooleem koo xam ne dund nga li mu dund di ko jox courage bu baax di ko wax ne euh, violé dëgg la mais comme moom yàlla tasane na ko ak ku mel ni Moustapha comprendre ko soutenir ko kooku dafa war a sant ndax waaye am na ñu ko dund te dañ leen cee doxee bàyyi ba faaw comme moom am na ko koy soutenir rek na ci na na na na am courage ci daal di wax Moustapha na gën a jàpp bu baax a baax a baax waaw la rakk bu baax di sant mboolem ku mu ko dal itam ñuy sant di ñaan daal góor ñi ñuy soutenir jigéen ñi surtout kaa yu mel ni rakk ku mu dal ñu di leen soutenir am na ci solo bu baax di leen si encourage aussi. ndax du seenu mbon seytaane yàlla moo ñëw ak dogalam ñi leen man man leen ma def leen li leen def kon loolu tam démb jàngale nañ ci lu baree bari macha allah téere bi daal am na solo torop mais laal la ak Jalika daal moom démb bëgg naa ci yéen lool sax Marème yow moom teeyal daal teeyal bu baax sax te aussi sa xarit mën na wax dëgg la lim na la soo yónnee ci Marème nag démb fi nga dugg soo yónnee ci. ah man de waa maîtresse bëgg naa. bég naa kontaan naa Lalla Lalla maa bég ci yow Lalla yaa am fula ah Lalla yow boo ni ah dangaa yéex a def birit waay bii nga def nii danga koo yéex a def mais nii la nag gis nga nit looy togg tànk ñor doo ko yekk maa la wax lii Lalla maa kontaan ci yow maa kontaan ci yow bég ci yow Marème ni cëppi cëppi mel ni benn sëb ba ngay sa jëkkër ji ngay ànd ak moom démb tey doogu dikk muy tabax ngay raax def seeni meuble tey mu bëgg ñëw effacé la ak lépp loo àndal day yomb day yomb mareem mii dama bëgg mu réglé feebaram sa yoon nekku ci booy jaay mbaax ak jonge bay lijjanti feebar yow sa jëkkër wax na la nga dem ni ko ràjj laal la cere jit neex na nga ni om lañ ko mooñee mareem yow ko yëpp feebaru laal la lan moo ci sa yoon mareem te nga réglé ci sa territoire teyam ci yàgg sa doomu ndey jooju bu pare xaritu lalla bi ak maa kontaan ci yow gis nga xarit sax day gën doomu ndey non man dama kontaan ci yow ni ngeen bëggantee nii lalla nii la de fi nga teg sa tànk fii la bu ko mas a teggi maa la wax lii kontaan naa daal rakki bëgg naa yàgg tafaa seen couple neex na ma trop mais jalika ko am fulla nga am fayda maki ak ay yaayam nañ dem seeti kuñ dajjeegul ku bees dàq waaw comme ni mu ko waxee rek man daal bég naa stress yi wàcc na Italie moom stress yi yeneen koy wàcce am na sama benn doom bu ni ma ami ba mu nekkoon naa mu ni ma maîtresse day wàcce stress waaw waaw non kontaan nañ bég nañ bég nañ mareem eh boo gëmentoo nga dem tëddi fii aawa yeeku ko moom maa ngi siyaar ñëpp di bëgge ñëpp di leen wax nag ñu ngeen di def am na solo neex na am na sens waaw yii Jalika gën naa la fan jigéen day am fulla am fayda waaw am dignité maire bi daf la tegoon koy taxawaal waaye bi nga ko waxee waxi dëgg nee na tekk waxatul jigéen dafa war am fulla am fayda waaw góor wóor la yëpp sa moromu jigéen wul la yet waaw amoo fulla amoo fayda man moom vraiment danga ma neex neex nga ma torop waaw parce que ni ngay dundee neex na ma ba pare danga sincère neex na ma daal neex na torop neex na torop waaw may wax ne mareem nag moom tey moom ëppal nga tey moom mareem ëppal nga yi gol bi nga defalee cheikh rek moo xelam del si mënoon nga toog mais ay dem di waxi jeeg laal la moom mënoon naa ñàkk di ko fekki ji ba néegam di ko jëlloo ay mag yooyu moom mënoon naa ñàkk ci yow moom mënoon naa ñàkk waaw indi nga sa problème da mënoon naa ñàkk comme ni la ko sa xarit bi waxe rek sa yoon nekku ci diggante boobu comme saabu bu fekkonte da ngeen a seq jàmm ak salaam sax nga nit tan waaye koo xam ne amu leen jàmm amu leen salaam nga seen maandu waaw commencement bi nag kontaanoon naa ci yow trop ndax ni nga amee dal ak li meer bi wax ak sa jëkkër li nekk ci moom nga mën ko defal delloosi ko waa loolu tamit am na solo waaye néeg laal la daal moom waroo fa dem moom di ko wax leen lu muy def wala ndax yaa ngi tane wala tanewoog yooyu yëpp mënoon naa cee bañ a moom demeewu leen noonu mënoon naa bañ a fekk lu baax na nga ci bëggoon waaye ñi ci am problème moom yooyu Cheikh ak mbéjam moom lu sedd de di nga ci am problème moom wax na série bi neex na trop am na sens macha allah léen di joué daal bu ñëw moom ngi ci gën cee gisati suñ bopp waaw gën cee gisati suñu daal neex na macha allah am na solo waaw mais mareem danga war di teey waaw teey danga koo war di def lu la dal rek moom ëppale la ko yóbbee moom teeyal tamit sa xarit boobu nekk ci bureau bi di la informer tamit jërul bàyyi xel daal am na ci yoo xam ne boo dee sëy jërul bàyyi xel da lay yàqal waaw avant lay cheikh di woor rek la xew ci bureau bi yëpp xam nga beneen bi laal la mi lay gën a eenal ndax xam na ni gel bi yaa ko yebaloon parce que lam jëndaat ak yëpp da ko faa bàyyi kon dafa bëggoon xam kan mooy laal la rek nag mooy loolu nit daal dangay teey teey daal moom ndox lañ ko ci ñimee ci nit ka gën a jeeg lu mu la mayut tamit dina la xañ lu ko waaw ñu di allah li ngeen def am na solo trop nekk leen si jàmm merci beaucoup asalaamaaleykum waa maîtresse baa ngi leen si jàmm solo kii de seen benn xarit seen rakk seen doom nday koy wootee depuis Casamance maa ngi Casamance jigéen char foofu lay wakkee ah man de dama sopp maîtresse waaye maram maram maram maram moom moom noonu lay sëy ba di chiffre jëkkëram ah boobu moom du sëy wax dëgg yàlla ah boobu moom du sëy ah mère Diagne moom moom moom moom loolu moom lu ëpp tuuru ëpp na ëpp na Jalika moom na xam ne sëy boobu moom yàgg wóolu da dina dina ah, dina parce que njëkk bi bugg ko góor wax nappi fi mu moom fu mu maanlu si sëy bu baax a baax a baax waaw waaye moom Mercedes neex na dem neex na trop trop trop trop waaw. asalaamaaleykum Xew TV maa ngi nuyoo du ziar di wax ne duggoon naa de maa ñëwaat ka ràkk li ka yaayam wax si biroom si loolu laay commentaire ndax ràkk yaayam xamal na ko lépp waaye ba tey ñoom dañ yeete dañuy yeete parce que nee na ko sa papa daf ma takkoon takku suuf na benn jabar la signé woon ah jabaram dama doon jaay soow sa sànce ba jigéen ju ne wax na si jàngat boppam góor bu la bëggee na la takk mu ne fang ñëpp a yëg jigéen ju ne si àdduna war na bañ takku suuf baaxul lislaam nangoo ko tey nangoo ko ëllëg takk soo musiba la kenn ñaanu ko yàlla que yow miy jigéen bëgg bu mu la tax ñu takk la takk suuf nga d'accord loolu benn jigéen ñaanu ko yàlla parce que dangay xool ne doom joo sa jurit fu mën a nekk si àdduna xasam lay doon bakaraama yi sàngoo suuf yow yaay bi sa xas lay doon yow doom ji sa xas lay doon te ku ne war naa bañal doomam xas gisuma daal lu ko jar si àdduna jigéen ñi koy def tamit nañ ko bàyyi te bàyyi xel gisuma nag lu ko jar si àdduna parce que àdduna bi loo fi gis lu ne day jeex kon bul nangu góor di la takk takk suuf te góor gu la takk takk suuf bàyyil xel ne yow góor bëggu la parce que góor bu la bëggee daf lay takk ñëpp yëg bu jigéen ñi yéen it bu leen jiital seen bëgg-bëgg chaque jour bàyyi leen xel parce foofu loolu yaayi ràkke wax day yeete rek trop jigéen ñi gën a xam seen bopp xam seen valeur waaw parce que jigéen dafa am valeur yàllaa ko suturaal bu leen nangu benn góor di leen def lool bu ko nangu mukk si kaw suuf. waaw salaamaaleykum moom maîtresse waaw maa ngi leen di nuyu di leen waaw maa ngi soog a commencé wax ni waaw maîtresse moom dañ koy seetaan dañ koy seetaan man dama koy siiwoo chaque jour bi ma commencé ak fu muy yem. waaw neex na lool neex na waaw nag kan moo ko neexal diggante kii Marème ak kii Cheikh Diagne ak Cheikh Diagne Marème moom daa bëgg rek ñëw affaire moom lan la commencement bi lan neexoon na ma waaye léegi ne lan la na ma commencement bi waaye léegi moom di ragal daan daa war a boppam taxaw daa war a boppam taxaw après mu marim lu mu soxla Yàlla defal ko pour kër bi mën neex daal fekk ndi ayu li Yàlla di ñuy def nag loolu ayu wujjante na loolu waaye lii nag lan nañu wax kii goro kii bi goro yaayu seex goro moo warul mel ni goro moo warul mel ni yaayu seex moom yaayu seex moom na baal waaye yaay bi moom doy na waar torop doy na waar torop goro di rafetaan koor su nekkee si kër di rafetal lépp lépp nit ñi affaire bi rafet daal ok merci nuyu naa leen théâtre moom neex na lool neex na lool macha allah dañu koy suivre chaque jour yenn saa day doon ñëw vendredi ak lundi léegi nag lundi lan na ñëw xamal lu ko waral ok merci.